satisfaction alhamdulillah, parce que quand même euh, choix dafa grave. quoi je pense que mon rek nekku fi s'il a été choisi peut-être amna na qui gis si choisir donc man je ma bëggee nit kooku di top, topp d'abord je suis fier. au-delà de moi que le fait que nous choisir un patron pour journée pour mel maintenant lan nous choisissons ñu choisir aussi amna solo moi, ban genre nit la Macoumba doon ba tey ñu choisir ko je pense que lolo aussi c'est quelque chose de très important Moi, c'est quelqu'un qui a fait un don de sa personne à la population C'est quelqu'un boo xamante ne japonané. na ne ci lépp lu nit di yëngu war na la mën a jàppale ba mu nekk source de revenus. tey soo xoolee làmb ji certes amna folklore certes culture la mais tey source de revenus yi Jogé. jóge tey nekk loo xam day produire ëllëg pour l'année. voilà pourquoi cet homme di dundu souvent ci lo xamantene ne day dimbale nit ñi ci nit ku ne nak ci noko ko parce que mën nga ko ñëwee ci école mën nga ko ñëwee ci culture mën nga ko ñëwee ci sport mais ci loo ko mënti ñëwee rek mom japp na né bu la defalee yow di ci jëlé lo xamantene ëlëk di nga mëna défal kenen voilà pourquoi mané choix bi amna solo mais en tout cas man je suis fier que mon patron soit choisi pour ce genre de situation c'est un homme bo xamné c'est un visionnaire mom suis na ne lepp lu nek Kaolack stagné wu booster la lutte ku ne xam na suñu mbir la mais tay war nañ mëna am des champions yo xamné fi lañuy mais war nañ des promoteurs ne buñ joggé def dinañ jël des centaines de jeunes yo xamante d'emploi mais aussi war nañ même des infrastructures yo dinañ ko gis moy nek ben vitrine bo xamné Kaolack mo koy mom donc nan lañ ko mëna défé moy quand les gens s'organisent nga jàppale leen tu les accompagnes Et je pense que ku xam président Macky Sall xamné képp ko ko djégé aussi di nga nek nit kuy organisé wu parce qu'il faut qu'on s'organise aussi pour faire avancer ce pays là voilà pourquoi mon bu gisee ben structure bu organisé wu comme la le CRG je profite de l'occasion pour saluer le président Bira qui est à côté daf leen di jàppale pour que ëllëg mu nek lo xamanténi ne nii dana jëriñaat réew mi pour dellusiwaat donc tay lolo ko dugal ci lamb suba ñu ngi peut-être ñu ngi dem ci final ginnaaw suba mu ngi ci éducation ginnaawaat suba mu ngi ci agri mu ngi ci mbéy mi voilà mom dal nonu la gisé né la politique c'est l'art de bien gérer la cité mom japp na né politique bi muy def pour mu gérer cité bi il faut couche bu nekk ci mom ci lim mën mu jappalé la pour nga dem ci lolu ba lolu tamit nekk source de revenu ñu ne ko ñun de suñ mise bi 1 million 000 cent lañ ci soxla nous avons 1 million 500 000 de la Le plus grand, c'est l'organisation. Le petit presse engagement tout. De la une de fal. De la un équipement. Aïe blouson, équipement, comité local, tous les arbitres et les superviseurs. Nous avons 30 blousons, Nous avons y a une organisation dina len jox ay t-shirt pour organisateurs yi ñi nga xamni ñoo ñew fekk ci bés bi yemu ca de mu ne dinaa leen jox ay lakos jox nañu lool loolu euh ñëpp sédé nañ ko vraiment yalla defoon affaire bi échecoon na waaye terewul daf ñun lépp loo xam dépassé ngeen ko ñun on est prêt pour vous aider nee né ne danañu accompagner

Euh, kontaan nañ nee na lépp loo xam ne soxla nañ ko nañ ko ko wax fees na place am vraiment gis nañ li nga xam ne moom lay liggéey ci ci département bi ak ci commune bi ak ci suñu euh, arrondissement ñun